sëñ Mame Mbaye moom xam na ne amul seen fay amul seen fay benn yoon mooy leen bu baax a baax di jéggalu jotaay bi ni ngi doxee ku ne xam na ne jamono ji xam ne ku la may juróomi minute ci boppam rek la may bari kon lu mu bëgg dañuy gàttal ci lu gàtt ba ñu war a jëlaat kàddu gi ñëw ci te mooy waxtaan bi war a doxal ci diggante bi tàmbalee ko jotaay bi te mooy euh, xam ne ñu ngi koy waxtaanee kan Cheikh Babacar Lo Babacar ma ne ko waxee kenn la ci mag ñi nga xam ne danoo gàttaaye woon bàyyi seen dëkk bàyyi seen bopp toppoon nañ ko baax donc xeetu ak baax loolu dama ci dugg dama koy bàyyee ba xam kat dina ko leeral te waaye la taxoon mu def loolu rek nga sukkandiku di bañ kan ko alquran nekk dana wajaa rajul min ahsan madina yas'a ah la maamam jooju nga xam ne Cheikh Babacar loolu moom suñu mbay mi defoon nag jëmu joojee jëmu joojee dinañ wax mooy kan ka taxoon mu baik bàyyi ab dëggam bàyyi ay ko suñ jigi nañ ko foofu la ñuy di ñaan mbokk yi di teewlu ñu nekk ci kër yi ni bëgg allah ko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 بين أعينهم وشرهم من تحت أقدامهم وأستعين بالله عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم موكي جوليجي موكي تالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي لين دي نيو ci nuyoo boobu nga xam ni moo gën a sell ci nuyoo yi di ci ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu boogam yàggal ko te wéral ko ak mboolem ñi mu àndal liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii nga xam ni moom mi ko moom waxoon ni barakati yi waasiatun wa baaxiya baqa mulkin zil hibaati safiya sama daraja ak sama liggéey dafay des lu desug sunu borom bi mu mel ni tey jii bis la bu màgg boo xam ni dañu ciy sant ku mat a sant muy Cheikh Ibrahima Fall ngir moom Cheikh Ibra Fall moo ni woon doom ku am na ma sant ku ñàkk na ma xalab bis la bu nuy sant Cheikh Ibra Fall ngir yoonu mooy bi nga xam ni bu amul woon penc mi ñu toog tey ñu fi toog yoonu murid boobu la Cheikh Fall wax ni bu doonu sëy la bu tasee mën nañuy delloo canga sant dafay liggéey ci islaam seytaane bi mu xamee ni li yàlla gën a bëgg mooy sant bi ko sunu borom dàkkoo génne ko ci diwaanul malaayika génne ko ci yërmandeem dafa wax sunu borom ni ko danaa fexe ba li ëpp ci jaam ñi kenn du la sant kon sant lu doy waar la ni ko suñ ma may waxe na di waxtaan woo xam ni wulu bett la da di ndigal nag ndax jotaay bii ñu toog ci lañ ko sàkkoo ci noonu ndax ki ko waroon a def xëy na ay xat-xat ak màggalu sëñ Mbaye gi ñuy waajal Cheikh Babacar Lo nag dafa bokk ci borom kudd yu njëkk ya doon koo xam ni dafa mel ni dafa teel a yëg teel a bàyyi xel yoon wii di yoonu am na lu sabab lool noo ngi siyaar bu baax Serigne Cheikh Lo moom Serigne Cheikh Lo moom Serigne Abdoulahi Lo moom Serigne Mambay Lo ak mboolem ñi mu àndal yëpp mu mel ni sëñ moomu gànjul la nekkoon bokkoon ci góor yàlla yi nga xam ni sunu borom bi leen a mayoon ñu mën di yëg leeru borom jamano loolu moo tax ñun sëñ Bayloo bi mu nekkee gànjoon di mu xaddam di mufti di tafsir di kaar diggam boroomam mayoon ko mu man di waxtaane lu jëm déwén te bu agsee mel ni moom mbooloo mi topp ko jiital ko waaye sëñ Mbaye Lo moomu amul lu ñu toog ba bis mu woo kenn ci ay dongam ñu di ko wax sëñ Baba Ndakkan ni ko baaba penk bii dey maa ngi seew ak leer guy tàkk goo xam ni bëgg naa bu bët sebee ñu seete ko mooy bu nawet bi wàccee sëñ baaba ndàkkat ni ko man daal xawma ak leer xawma ak janeer yow laa xam te foo nekk ma fekk la fa dix-neuf cheikh Mouhamadou Lamine Ba gane àdduna moom Cheikhul Khadim bi mu ganee àdduna sëriñ bi woo ñeent ci mag ñi cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye sëriñ daal Assane Ndiaye sëñ Massamba Diop Samb ak sëñ Dame sëñ Dame Abdourahmane Lo moo leen ñeenteel jotaay ba sëñ am dikat nee na ma sëriñ Bara Sarr xombal da koo fekke sëñ bi dajale leen ci benn jotaay ñu leen gan gi fi ñëw dalee dalee na indaale seenu ngërëm Ibrahima Fall loo bëgg Cheikh Ibra ni ko gën laa bëgg sàmba Diop Sam loo bëgg mu wax ba mu agsee sëñ daam Abdourahman loo sëñ daam loo bëgg mu ne ko dama bëgg murit bi njëkk jébbalu ba kay mujjee jébbalu bu ci kenn naree faatu dem safara ñu wutale ko sama jëmm ji sëñ Tuubaa ne diis ab diir ni ko sëñ daam mu ne ko ndax Mbàkke mu ne ko loolu nga wax suñ borom ne dala koy jaay fàttu ci biir ab diir génnaat loolu sëñ Tuubaa rek yàlla may négal ma laaj ko yàlla négal ma waxtaan ak yàlla loolu sëñ Tuubaa dong ko yàlla may génn ni ko suñu borom mais lim la koy jaayee mooy li des ak dund guddi ku jot da ngay naafila kaamil ci ñaari rakkaa sëñ daan wax nañ ni ba ak mu jëm bi ko mag duggee dañ daan jàpp ni bu guddi jotee du ko man waaye bu nee bëgg ba jëm ci loolu day mel ni waxambaane wu toll ci diggu doyam Cheikh bi mu amee ngërëm sëñ ko Ibrahima Fall la jegesil mu jegesil sëñ Tuubaa bind ñetti daal ci am loxoom muy ndar ak ndànd ak ndakaaru Cheikh ba bàyyi koo fa booba fees na dell ci ngërëmal yàlla ndax Cheikh ba nag nanu bàyyi xel ni bu fekkoon nit dana am lu ko doy ba du dem ci kenn du ak si Sëriñ Tuubaa ndax moom Cheikh Ibra Fall moo wax ni njëkk muy dem ci Sëñ Tuubaa àgg na ci armeel yu ma war mu ñu jéggal leen doonoon koo xam ni soxna xadiloo sunu maam mi nga xam ni moom la joxoon Cheikh Ibra moo wax ni wan na ko léegi tam bi nga xam ni dañu ko xiyaamu lay li moom ma ko def taxawal julli njëkk bu ñëw Sëñ Tuubaa kon ko jeexoon tàkk tàkk la ci yàlla moom Cheikh Ibra te lay wane loolu mooy ba mu janoog jëmm ju toll ni Sëñ ndax sëriñ bi dafa bokkoon ci may yi ko yàlla may mooy loo baax baax loo tedd tedd loo jub jub boo nee ko jàkk xam ne moo la gën waaye bi mu janoog sëñ Tuubaa dafa ànd ak sagoom ni ko inna nii lam yuxrij nii min bayti ila talabi cheikhin muslim ila llahi tandafiu maahu zulumatul xaq wa tatajalla bihi ayatul xaq na nga xam ni li ma tax a génn weesuwul di topp ngërëmal yàlla ci jëmm joo xam ne boo nee ko jàkk léegi suñu dafay jolli ci moom lu lëndëm métti métti métti bu nee diis si barab lëndëm loolu lëndëm ko toxu Cheikh Ibra Fall li wax ak Sëriñ Tuuba te Sëriñ Bachir nettali bi mu demee ndax moom Cheikh Ibra Fall ay taalibe ba ak si barab boobu di Ndiouf Gaye Ndiouf fekk fa suñu maam Cheikh Babacar Lo wax nañu bi mu agsee dafa nuyoo ni ndonga